Bagi taalibe yi ñu ngi ak sunu jëwriñ maam Ahmadou Bamba ñu koy saar saar di koo xamante ni ku ne xam na ko ci di di di di fierté Pikine gi yëpp ak fierté mboolem waa Dakar eh, maam Bamba lay wax lan ngam yëg ci bis bii waaye Tarqiyyah jiite ko ànd ko sëñ Amsa ci ndigalu sëriñ Muntaxa yàlla fi yàgg sant ko bi rek ndax ni ni ko sëñ bi soññee rek ni ko sëñ bi soññee bokk bokk bàyyi su ne ko doy dama bëgg ñëpp xam ne bis xasida ren gi day ñaar laa ci bëgg ñaar laa ci fas benn bi mooy damay sant sëñ si waa waaye beneen bi mooy am sama yitte ci sëriñ bi yokku ci di ko loolu nag yaakaar naa ne kenn ku nekk bi mu a a dëpp ñu kattan ba yéen yi am ci liggéeyal ko mu dëpp ñu tawfeex ba nga saa su nañu ci nekk ndax gis ñu war moo ñu war moo li ñu war def te moo li war am te ku ne xam ne bis xasida bu ko waxee xasida at na lépp àttali na lu ne ñoo ñaan nag barke xasaay yàlla nañu tabbi ci ñun suñu jëm yi ba liñ ci yéen lépp ñu dara jaxasi dégg amiin amiin sant nañ baax a baax maam daam jërëjëf sa jërëjëf amiin